wale Abdou Jamba wale ñaari mare kala wale bii ci kaw wale bii ci suuf wale taajaboon taajaboon wale taajaboon taajaboon wale boisson punch bi ak ay jàmbaar xale taamu nañ ko boisson punch bi ak ay jàmbaar xale taamu nañ ko boisson punch bi ak ay jàmbaar xale taamu nañ ko te bu seddee neex te bu seddee neex te bu seddee neex te bu seddee neex te bu seddee neex yow mosal ku ko mos tàkkam tiku variété man sama dàkkal teranga pan si laay ndaale lu ko dàkk mooy mbër mi dekk ma ñëw di ko bàkk moo mën ci xew yi mi bu ko ñàkk ak pan si rek teranga fii la fekk baax